ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi ñoo jéggalu bu baax ay ñu jëlaat sama waa ji comme ça mu tari balaa ñuy euh, num kan sax aj aj maa ngi jéggalu bu baax xaar ma woowaat la comme ça voilà oui Isma Idrissa. loolu bu baax de affaire daa jékki-jékki. dëgg la xaw ma lu ko. connexion bi la connexion bi la connexion bi la. dëgg la dëgg la. incha allah. <coughs> léegi bismillah ñu déglu la. après xam naa dañ gën a waxtaanaat ci affaire yi. incha allah incha allah incha allah incha allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi rrahmani rrahim inna alladhina qalu rabbuna allahu summa istaqamu تنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا الغفور الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا قوم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها صدق الله العظيم السلام عليكم jërëjëf jërëjëf yàlla ku ñu baax kontaan nañ bu baax a baax a baax maa maa maa gën a kontaan yàlla xam yow da ngay ñëwaat suba <laughs> yàlla baax na yàlla ñu leen dimbali incha allah. waaw ah, kon kontaan nañ trop jërëjëf waay jërëjëf. gën a kontaan sincèrement man maa gën a kontaan ngeen leen opportunité jàng alquran jullit yëpp déglu ko tuyaaba yi ci nekk yëpp yàlla ñu ko yàlla boole xasanaat yu bari la. man ma jox nañ la jox bu baax gars yi neen jox nañ la trente sur vingt. <laughs> ah non non. <laughs> yàlla wéral yal bu la dara dal. allahumma amin yow itam yal na yàlla musal la Idrissa yàlla musal la dimbali la yàlla musal la ci cat musal la ci làmbin et puis euh, yaa xam say ambition sportive ak euh, lépp loo bëgg si àdduna mhm. sa euh, sa sa ambition ci sport bi après sport bi yaa xam ni ñu ko bëggee yàlla na la ko yàlla defaree nu kawe sa njort te aussi di dis-toi li nga def nii defal nga ko képp kuy jàngalekatu alquran ci Sénégal sincèrement c'est innovation la maa ngi ñaax aussi ñeneen ñu ñu def la même chose ndax jullit ñaara ko war roy ak romb lu baax dañ koy roy lu baaxul dañ koy romb donc uh-huh. vraiment ubbi ubbi nga bunt bi macha allah. jërëjëf jërëjëf non yeneen dina ñëw incha allah. incha allah incha allah incha allah incha allah allez merci merci Idrissa tuddee momo momo duñ jël kook bàyyi ñu jëli sama sama ustaas bi wax ñu lu mu xalaat ci gaay yi voilà yaa ustaas ustaas yaa ustaas taalibe taalibe la ñu yaa taalibe mais yaa taalibe gis naa la de sànq ba maa ngi jël gaay yi gisuma la fenn maa ngi suivre maa ngi suivre affaire yi. maa ngi bu baax loo wax loo xalaat ci gars macha allah rafet na te neex na tamit lool tamit macha allah. macha allah macha allah li li rek mooy yal na ci yàlla def sutura quoi. amin amin amin amin ñu eggale ko si jàmm incha allah bi tamit mu nekk tamit loo xamante ne lu tegu ci kaw yoon la incha allahu rabbi. ñaan yàlla tamit mu feesal tamit ci yaabay. amiin amiin macha ba xam guddi léegi dañuy jël benn soxna rek benn soxna après ñu waat la nga tëj nga tëj bi. <coughs> bu soobee est ce que tey bi duñ bàyyi ba ci dernier jour bi. ah. waaw waaw. doo maye bu sew rek tey bu tuuti rek. <laughs> amul problème kon nga mosal gars yi bu tuuti tey comme ça ñu mosal leen bu sew rek comme ça ñu nangu ñëwaat suba incha allah. amul problème. moom moo koy dernier jour bi ma tëj ko. non yow kay dernier jour bi kay doo ko tëj kay bu nekkee bu nekkee dañ laa nar a xaar moom ba dernier jour mooy nax nañu. <laughs> mais soxna soxna si ñoo ngi kaas nee na ñu jël si benn soxna ba ñu jël benn sumaaya boog sumaaya su fekkee yaa ngi fi. yónnee ñu benn invitation oustaz ah, nga déglu ko problème moom mu tëj ko tey. voilà jërëjëf. mu tëj ko incha allah. incha allah waaw ok maa ngi lay waat après kon. ok bu soobee suñu borom. ñu jël benn soxna Soumaya su fekkee yaa ngi fi yónnee ma invitation. ayca Soumaya ma ngi lay xaar Souma ban xayaat yi. Soumaya Dieng. moom gisoon naa ko de l'avait vu tout à la. Dice passa só salaam. Oustaz Gana. Oustaz de. Oustaz Gana ñu ngi ziar. duma Oustaz de. Oustaz Mokhtar ñu ngi ziar bu baax a baax. yow kenn gisuloo de yaa ngi connecté wu ba léegi lay bind. ah. gisuñu la mais lay dégg bu baax. salaamaaleykum. waaw ñoo ngi lay dégg bu baax de mais dañ la gisul rek. ah gisul góole bi. salaamaaleykum. waaw ñu ngi lay dégg. Ousmane Makhtar ñu ngi bu baax a baax. delloo naa la ziar bu baax a baax a baax. kontaan nañu bu baax macha allah tey moom bëggal ngeen dafa mel ni oustaz moo la gën a kontaan de sama yaa am daw na de sama dem nga de ñu jëm a woowaat sama yaa xool suma yaay yónnee waat ñu invitation su fekkee yaa ngi fi Famara Diédhiou ñool bokk alhamdulilah Famara xaar mu ñëw jël la yow Kisha doo ñëw bokk waaw bi moom baax na ñu ngi lay gis bu baax waaw ñu ngi gis bu baax macha allah waaw su ma dañu maa ngi si baax a baax bismillah non yow kay laay bàyyi wax ak moom waaw soxna su ma moom bii du su may du mbëgge la mbëgge mbëgge alhamdulilah macha allah léegi dañu bëggoon nga jàngal ñu alquran Cheikh Moujtaba mu ngi lay déglu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم ما شاء الله. ما شاء الله. lii lii moom macha allah sa baat bi moom xaw ma jigéen ak baatu góor lu benn. damay góorgóorlu rek. <laughs> oh neex na neex na xanaa yaa ustaas moo la jàngal. moo ma jàngal kay. moo taxit kontaan na es bi. <laughs> bi ñëpp kontaan nañ gars nañ leen cinquante sur vingt. <laughs> ga gars ndax sénégalaise nga. sénégalaise laa kay. nga fekk baat bi yoroo baat bi baat bi xaw ma baatu Sénégal muy mel ne waaye neex na <laughs> kontaan nañ trop macha allah. macha allah Adja Mbacke. waaw kon bàyyi ñu bàyyi la jërëjëf waay jërëjëf kontaan nañ. gaa nee la Cheikhou jël ko troisième femme <laughs> Cheikhou gaa nee nga jël wala <laughs> Mbaye Ernest Ndoye Cheikhou troisième femme. mu dugal ñu jël yaa oustaz. c'est candidat Mbaye Sarr. vous arrêtez à sept heures. Cheikh Mohamed. naam ahlan oustaz. macha allah yaa ngi doon topp soxna Mbëgge. macha allah moom jàngam bi moom ki moom référence la moom. macha allah. jàng bi wër na te neex na dal na tamit. maa ko jàngal. Idrissa Neal moo <laughs> dina mën a nekk incha allah dina mën a nekk incha allah. Sidi Ahmed Gassama xam naa bëggoon naa ñëw xaw ma ndax mu ngi ci ligne wala. Uh-huh. ñu jël ñu jël ñu jël ñeneen ñu soobee suñu borom incha allah. rabbi waaw nañ bàyyi ba suba ñu jël leen ñoom. neex na moom bu ñu sañoon moom ñu continuer fii ba suba suba mais. temps bi xam naa yow occupation bi. mais nag ñeneen ñi nekk ci yeneen. fexeel loo mën a def def def yëpp. Fatiha moom di nga ko tari moom. pour valider affaire Fatiha di nga kon bàyyi ma kooku bu la neexee léegi ma door rek mais dama la koy dencal ba dernier jour bi may leen ko. ah problème en tout cas daal en tout cas daal pare ko. non leer na boobu set na wicc. expliqué ah. yeneen la ñuy wax. mu tebaa ah, yàlla baax na. mu tebaa nañu jàngal sabbih waaw. <laughs> léegi léegi loolu loolu léegi bàyyi leen ma jël ko PV sama diggante ak moom kenn. <laughs> voilà merci beaucoup merci beaucoup. kii dafa bëgg a dugal de. delluwaat Paris di gëlëm. <laughs> yow merci beaucoup yaa ngi may sauvé es bi taxamoo ko. balaa muy delluwaat <laughs> macha allah mais gars yi bëgg a dugg moom bëri nañ trop macha allah gars yi moom. non vraiment vraiment vraiment lu neex la tamit lu rafet la tamit wax dëgg moom. Mm-hmm. te dafay sawarloo tamit fi wax yooyu yëpp xam nga li ci li ci gënoon am solo tey mooy comme niñ def ñuy toog yenn gars yoo xam ne am ñu. kenn xamu leen te mënuñu amuñu occasion wane seen bopp ñu wane seen bopp ñun ñi surtout ñu kontaan di waxtaan ak yow tamit waaw ndax xam nañ li nga def ci ci monde entier bi ak ah, ci Afrique bi gars yi gars yi gars yi da ngay làqatu rek mais foog ma génnee la de li nga def fii moom. macha allah yow mii yow mii. macha allah Cheikh Cheikh Cheikh Mohamed kontaan nañ. jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax macha allah. yàlla am ak yow jotaay moom dañ koy rafetlu. di ci am di sàkku ci yéen ñaan di sàkku ci yéen ñaan toujours. Idrissa itam def na boppam oustaz nii rek. non Idrissa kay Idrissa kay moom nekkee oustaz yàgg na. taalibe laa maa ngi seen ginnaaw rek. Idrissa moom nekkee oustaz yàgg moom gis nga dafa bëgg lu baax. nekk ci làkk leen arab. Eh, déedéet am na ñu nekk ci suuf. <laughs> dégg nga bu ko defee Cheikh Kouyaté tamit dina bokk si incha allah ñuy ñëw suba. incha allah. ak ku sérieux ki Koulibaly. Koulibaly xam naa moom naa ko wax mu dugg si incha xam naa. non moom moom dafa dafa sérieux moom. Ah, macham mi ci biir macham yi moom. <laughs> dafa sérieux moom. macha allah mu ngi noonu bu ko defee gars yi ñi mokkul ñoom Cheikh ak ñooñu ñi war a réviser nañu réviser balaa suba. soobee suñu borom. incha allahu rabbi kontaan nañ bu a mucc ba. voilà jërëjëf jërëjëf. jërëjëf waay jërëjëf bu soobee ba suba incha allah. mu ngi Cheikhou royaume boo fi nekkee wala Mbaye Diagne ñëw leen. waaw Malick Malick Seck ma man. yow gisal Sonko Sonko nen envoyé invitation bi. macha allah. macha allah mais Cheikh damay tëdd de. Cheikh gars yi pare nañ de gars pare nañ gars yi nag mënuñu jël on peut pas prendre tout le monde aujourd'hui Ficha boo bëggee yow mën nga ñëw nee nga da nga ñeme ñëwal ana Ficha yónnee invitation. ah. waaw parce que tey dañ ne woon en fait affaire bi kii la woon sax nu mu dañ ne woon cinq personnes lañuy jël mais affaire bi dafa neex tellement que ni dañ ko yokk dañ ko yokku tey ba set waaw mais xam naa duñu mës a duñ mën a jël ñëpp. léegi dañ leen di wax rek ngeen yónnee kii nu mu tuddati euh, vidéo yi comme niñ ko defee sama sama profil comme niñ ko annoncé si si story bi képp ku bëgg participer si euh, concours bi da nga benn vidéo si parmi ñooñ ñoon di yónnee vidéo duñ mën a jël ñëpp nag si ñooñ la ñuy choisir xëy na suba sax si lay gën a neex mën na tamit suba ñu changé di jël ci public bi nii par exemple kenn koo xam ne bëgg nañu woo ko léegi nii rek ñu jël ko sans pour autant que ni mu yónnee vidéo yooyu yëpp mën nañ ko si dugal après mais en tout kontaan nañ trop dañuy bay ah yaa oustaz mu waxtaan ñu si benn waxtaan bu sew après ñu tëj affaire bi euh, macha allah xam naa kontaan rek mhm. di wax euh, mbokk yëpp ñu def ni Idrissa eh, jamono yi ñu toll gis nañ Sénégal bi ñëpp tëjoo ñee nga xalaat toog seen kër def live ci musique ñi def ko ci leneen moom mu mënoon a ñëw tamit def ko ci li muy yëngu waaye moo xalaat alxuraan kon ñun ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci milieu alxuraan war nañ ko sant war nañ ko ñaanal yàlla bu mm-hmm. hmm? defee mu ngi noonu di ko rafetlu bu baax a baax a baax xam naa comme jeexagul te Oustaz Mohamed mu ngi ñuy topp dañ lay bàyyi rek euh, ba beneen yoon bu ko defee euh, ñu ñëw gën a yaatal gën a euh, topp gaa yi nga xamante ni ñu ngi ñëw te bëgg a participer. Mm-hmm. ñu war a dugg tey ñëpp ku mel ni Sidi Ahmed sama ku mel ni Alkajoor yi sa Madina Munawara ku mel ni Mbaye Diagne waaw Mbaye Diagne. Mbaye Diagne daa bëgg a dugg. Mbaye Diagne dafa bëgg a dugg. ku mel ni Suyuti euh, Cheikh Kouyaté ñoom ñëpp incha allah beneen yoon ngeen xaar leen te xam ne li yemul yemul tey mhm. euh, sang bi sama wet mooy kan maam Cheikh maam Cheikh it xam naa suba incha allah mais moom day dugg jàngal ñu Sonko euh, nga xaar ñu suba bëggoon nga ñëw tey ak Maysa Maysa tamit nga xaar ñu suba incha allah duudu di nga ñëwaat suba. incha allah moom moo tamit moom moo nee na woon tey def ñu mbay. waaw moom moo moom voilà. salaamaaleykum sëñ bi mbay. kon ñu xadi gasam mbay ñoo ngi lay ziar ñu delloo ziar naka naka weeru koor bi to waa tranquille ngi si jàmm bàyyi ngi si jàmm rek ñoo ngi si jàmm bu baax alhamdulilah Ficha moo ne ñu dugal la gars yi ngi lay ngi lay xaar ci tari bi <laughs> waaye ziar ñëpp ak <laughs> kii bamba mbake gaa nga may ñu benn. bu mel benn la. nga tarim ñu benn saar rek loo man rek. ah mun naa leen waxal Fatiha xanaa bu baax. nga xamante ne mooy saar bi nga xamante ne moom foofu ngay commencé. yow yow yaa ngi suivre direct suivre nga ko tey. non mais suivre ma ko vite fait duggoon sànq gis la après dama génnaatoon quoi. mais vraiment suivre ma ko. gaa yi tari nañ affaire yu neex affaire bu neex. waa gis naa ñaari bi may tombé ñaari jumeaux yi laa tombé quoi bi ñu bi ñu jàng non ñooñu ñu jooyloo. en fait ñaari booy xam naa leen quoi. dëgg la dëgg la. dëgg la waaw ñu jàng nañ lu neex daal waaw. sëñ Mbaye maa ngi bu baax. ñu ngi lay delloo ziar bi waa lépp jàmm rek. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. baanaat leen ba pare. waa naaf li naa de. macha allah léegi dañu bëggoon. Uh-huh. gars nee nga tari Fatiha bi gars yi. public bi nee nga tari Fatiha. <laughs> téléphone yi tax na de. aca <laughs> bismillah. waaw bismillah. auzu billahi mina shaytaani rajim. Uh-huh. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi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 kon eh, lu am solo la commentaire bi gars yi kontaan nañ waaw lu am solo la waaw mais jotaay bi jotaay bi lool dëgg la dëgg la ah sa waay war na ma si jox benn man moom benn spécial ma jël ko man tam ah ñu jox la si daa waaw xool bu trois jours yi jàllee après yow jël ah naa la boole saa waay incha allah dina ma neex de ma génnee sax waaw <laughs> comme ça ñi amul change jàll si man nañ jàll si yow <laughs> waaw incha allah waaw mais kontaan naa booy jaajëf. waaw mais rafet nañ leen di ziar bu jaajëf. bi. waaw idi gars yi nekk ndaw war a ñooy wax noonu. ñoom ñëpp nee nañ nelaw ñu ngi koy topp. ba Medina ba Medinatul Munawwara. macha allah ñoom eh. amul kenn mën a dugg fi. waaw yéen ñi nekk Madinatul Munawwara eh, maa ngi leen di xaar Kajoor yi. Kajoor yi dafal ñu ñaan ñu dem eh, nee na nee na am na kenn ku nekk Madina bàyyi ba suba ñu jël ko añ eh, bi gudd na ak eh, guddi nag kon ñu une heure du matin bi ñu jot voilà waaye ba suba rek ñu yónnee seen Instagram comme ça nga xam dañuy mën a woo directement quoi macha allah waaw merci beaucoup dafal ñaan ñu dem bo waaw ñu jàng Fatiha kon <laughs>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 Sénégal koor kooru jàmm yàlla nañu yàlla nangul suñu koor ngeen ngeen moo wan leen kaamil bii nag kaamil bi Idrissa moo ko jëndee Makkatal Mukarram macha allah bi mu demee kaamil yu bari la la jënd macha allah mu nekk koo xam nag diine daf ko ñor papaam daf ma wax ni ma idi daf ko bëggoon a boole ak man <laughs> waaye tey di sama bis tey bisu gars yi la <laughs> jaajëf waay gars yi maa ngi la ñuy bëggee